julli ci yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ak ay ñoñam ak ay saxaabaam ñoo ngi leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu kon mbokk yi yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi suivre suñu chaîne YouTube bi Al Bichara TV ñu ngi leen ñaan ngeen gën a yokkoo abonné kon bu ko defee dañoo fas yéene ñëw ak yéen ci benn xisa bu am solo lool ci bésub tey lii benn àll woon bu sori lool bu amoon benn buur bu fa nekkoon bu nekkoon ab gaynde kon mbokk yi àll bi ab gaynde moo ko jiite woon mu nekkoon àll bu sori lool waaye gaynde gi jiite woon àll boobu noonu daf daan maltraité ñi nga xamante ne ñoom la jiite woon mu nekk yeneen mala yi nga xamante ne yàlla def nañu bokk dëkk bi nga xamante ne fa lañ nekkoon muy àll bu sori boobu noonu kon mbokk yi moom mi nga xamante ne mooy buuru àll bi ki nga xamante ne mooy gaynde daf daan def bu nit ñi bu yeneen mala yi naan daf leen di limité ci benn dex bi nga xamante ne nit ñëpp fi leen daan naanee danaa leen bis tàng nangam kat kenn du ci naan heure sàngam kenn du ci naan jox leen ay règlement yoo xamante ne bés bi si la ñuy naan heure boobu noonu bu ko weesoo kenn du ci naan bu daan def moom tamit ki nga xamante ne mooy gaynde googu jiitu woon boobule àll daan def bu li nga xamante ne mooy samedi jotee mu génn ci dëkk bi ci àll bi nga xamante ne fa la nekk xool fa yenn ci rabu àll yi nga xamante ne yu ndaw lañ mu génnee ci yi mu si soxla jàppu leen rey leen lekk leen mu koy daan defee noonu chaque jour mu leen di maltraité noonu di leen def leen metti lool ba benn bés am benn mala boo xamante ne mu ngi nekkoon ci àll bi ñu naan ko lëkk daal toog daal xalaat ne li nga xamante ne seen buur bii moo ngi koy def nekk na lu ko métti lool mu jël décision jël daal di dogu ne dinaa fexe ba sama dëkkkat ñu nekkaat ci jàmm mu daal di dem benn jour daal di woo waa dëkk bi yëpp ba mu des ki nga xamante ne mooy buuru dëkk moom lëkk mu woo ñenn ci rabu àll yi nga xamante ñoo nekk ci boobu la dëkk mu ne leen ay cinq ay tàkkusaan kat bu jotee dama bëgg yi ñëpp ngeen dawandoo ñëwandoo ci benn garab bi nga xamante ni mu ngi ci pencum dëkk bi ba waxee loolu moom lëkk waa dëkk bi yëpp d'accord waaye boobu ba léegi xamuñ moom li nga xamante ni moom la jublu ci loolu après si la tourné moom lëkk dem ci ki nga xamante ne mooy buurul dëkk bi muy gaynde mu yi di kay wax ne cinq dama laa soxla et tàkkusaan yooyu dama bëgg ci penc ma ñu daje fa man ak yow ndax dafa am lu am solo lu ma la bëgg a wax ba gaynde defee loolu ñu dem ba ca garab googu ba tàkkusaan jotee yeneen mala yi nga xamante ne lëg waxoon leen bu tàkkusaan jotee rek ñeen yëpp ngeen dawandoo ñëwandoo ci penc mi ba ñuy dawandoo di ñëw nag ci lañ gis benn ngelaw ak ay bruit di ñëw moom lëkk ak yi nga xamante ne mooy buuru àll wi di gaynde ba ñu gisee ngelaw loolu di ñëw lëkk daan ne ay gaynde tey rek ñu dee jal weer gaa ngi ñëw gaynde ko ne ko ana na lañ mën a def ba mucc ci jal weer gi lëkk ne ko dama bëgg nga jël buum gii nga takk ma ci garab gi du ma dëgër nga xamante ne bu celluweer bi ñëwee man du mën a dem gaynde ne ko déedéet man ngay takk ci garab gi ndax man kat sa buur mu ne ko déedéet buur li nga nekk buur moo tax nga war a ma takk fii ci garab gi buur bi ne ko noonu dama bëgg rek nga takk ma ndax man may sa buur la jël ki nga xamante ne mooy buur bi takk ko ci garab bi bu mu dëgër lool dekat te yow ñi nga xamante ne pënd bi nga xamante ne moom doon wëri di ñëw ñooñu mooy yeneen mala yi nga xamante ne ñu ngi ci dëkk bi ñoom ñoo doon ñëw ba mala yooyu noonu yegsee gis ne gaynde kat dañ koo takk ba mu dëgër dëg daan ne leen seen buur bi le de man maa ko dóor ba takk ko fii ci garab bi te instant yi seen ndigal rek lay xaar pour ñu rey ko ba mu waxee loolu gaynde daal leen di baalu daan na leen kat ay yow mi samay mbokk su ma sañoon kat ngeen bàyyi ma ma dem te bañ maa rey soo leen ma bàyyee dinaa génn seen dëkk dem may leen jàmm ngeen dund seen dund bu am solo wala ko ñi nga xamante ne mooy yeneen rabu àll yi nga xam ne ñooy ay mala yi si lañ ko bàyyee moom gaynde googu la mu daal di dem génn dëkk bi may leen seen jàmm ba ñu commencé di dund dund gu neex lool kon mbokk yi xese bi ñu si mën a jànge lu simple la mooy yow mi nga xamante ne yàlla suñu borom subhanahu wa taala moo la dénk ak nguur def la nga jiite ngir ngalawaay na nga fexe ba bul xoqatal li nga xamante ne moom nga njaboote te jiite leen ndax njiit kat du ay grade moo koy def waaye yàlla suñ borom subhanahu wa taala mooy xool ku ko neex ci ay gaayam def leen ñu jiite waaye itam yow mi nga xamante ne dañuy laa jiite nga nekk ci dëkk bu jiite la wala nga nekk ci benn groupe boo xamante ne dañ la jiite nga nekk fa membre ngalawaay na ngay jàppale say morom yi nga xamante ne yéen a bokk li nga leen jiite bu dee leen jiite jaarul si yoon da ngay xeex say droit kaasal leen ba nga xamante ne doo ci def dara loo xam ne lu ñaaw lay doon te boobaa di nga si mën a am ndam kon mbokk yi xam naa fii lañ yem ak yéen ci xisa bi di leen wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu